mbokk internet yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télé Sénégal TV ñu ngi leen di dalal jàmm ci seen émission Sénégal Soir ni ngeen ko tàmmee am ngoon gu jot du lundi au jeudi ñuy am mbégte toujours jàkkaarloo ak yéen tey alxamis xam ngeen ne dañuy ànd aussi ak euh, le grand Diorine Ndiassé dinañu dalal itam docteur Cheikh Dieng euh, bokk euh, ci coalition Diomaye président nekk itam président parti fépp Tawfekh Cheikh notre chroniqueur maison aussi mi ngi fi ñu war a ànd décortiquer actualité fàtte bi nga xam ne riche na lool li fi xew ci bëccëg bi bari na li ñu dëkkmal aussi nekk lu am am solo muy installation officielle wu euh, président Bassirou Diomaye Faye mu war a itam jublu ci taxawal gouvernement wam loolu yëpp daanu ko waxtaanee ak sunu gan léegi tey mu yegg si docteur Cheikh Dieng bokk ci allié président Bassirou Diomaye Faye balay loola nag ñu dalal jëwriñ Ndiassé tàmbali jotaay bi jëwriñ ñu ngi lay nuy dila la ziar ñu lay fay Fatou di la siyaar bu baax a baax di nuyu Cheikh di leen siyaar di leen euh, ndokkeel encore mm. <laughs> une fois de plus aussi ci victoire bi ñu sekk ñoom mm-hmm. ñëpp quoi changement bi ko mm-hmm. jërëjëf jërëjëf <laughs> jëwriñ Ndiassé ñu ngi lay ziar euh, euh, Cheikh ñu ngi lay nuyu itam di la dalal jàmm mm. Euh, voilà di mhm. am mbégte mhm. allahuma amin amin alors euh, Cheikh ni ma ko annoncé euh, suñu gan docteur Cheikh Dieng bokk ci coalition Diomaye président nekk itam président parti fépp tawfeex yegg si na docteur Cheikh Dieng ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la félicité. Ah, maa leen nuyu di la ziare bu baax a baax. Mm. di nuyu Jawriñ Ndiasse. ak ak Serigne Cheikh Kane mi ñu mm-hmm. bokkal plateau bi. Mm-hmm. donc di la sant di gërëm ci yi. Mm-hmm. di di ko delloo le peuple sénégalais. di ko delloo le peuple sénégalais. parce que je pense que élection yi ñu génne peuple sénégalais moom moo jaroo njukkal moom la ñu war a delloo njukkal. di delloo njukkal également tous les membres de la coalition Diomaye président. rek c'est une bonne centaine de partis et de mouvements. yoo xam ne ñoom ñoo taxaw donc accompagner quand même dynamique bi nga xam ni moom le peuple sénégalais eh, jëloon ba yàlla ma ñu ñu mën a aboutir à ces résultats mais ci coalition Diomaye euh, président ñu beral ci euh, des félicitations particulières donc au leader de la coalition donc euh, le président Ousmane Sonko parce que bu yox yoxe bu teeloon a bàyyi buñ ko tiitaloon rek mu daal di xof kon résultat bi peuple bi àgg tey leadership am moo tax ñu mën na egsi fii donc moom moo mérité particulièrement donc félicitations yi mais di di di féliciter aussi donc euh, le nouveau président donc Bassirou Diomaye Diakhar Faye di ko ndokkeel ci euh, confiance bi nga xam ni peuple sénégalais bi donc dénk nañ ko ko. Mhm. pour les cinq prochaines années à mhm. justement dañuy commencer ak actualité bi gën a bees. docteur Cheikh Dieng gis nañu ñaar ñoo ñu nga tudd président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye fay ñu dem pale euh, doon euh, daje ak euh, le président Macky Sall muy seen ndaje mu njëkk gannaaw élection présidentielle bi nekkoon nga pale nekkoon conseiller wu président Abdoulaye Wade. tey lan moo xew. normalement ci diggante président Bassirou Diomaye fay ak président Macky la ci teewaayu Ousmane Sonko. waaw ah, je pense que c'est euh, loolu mooy l'ordre l'ordre naturel. de la passation de pouvoir. d'accord ku wax passation de pouvoir xam ni état am na yenn façon dossier yoo xam ni dafa laaj. Mhm. ki nga xam ni ñiy jébbalante lenge yi. Mhm. donc ñu seq yooyu secret. ñu seq euh, yenn dossier sensible yi nga xam ne peut-être que peuple sénégalais duñ ko yëg mm. li nga xam ne duñ ko bind ci ay këyit ah, am na yu dul bind mm, mm, am na lu ñuy bind parce que c'est ça qui est la marche normale de état état am na ay mbir yoo xam ni responsabilité lañ koy gérer parce que boo ko tegee sur la place publique dina mën a indi ay ay ay du baax du baax euh, tout état a des secrets donc yooyu donc dafay laaj dans dans l'ordre républicain mm. que président sortant bi ak président bi nga xam ni moom le peuple bi fal ñu toog waxtaanee ko mu defal ko l'état de ces dossiers sensibles la donc pour que président Diomaye buy ñëwee mën a xam fu yooyu fu mu toll mu wax ko lan la ci jotu liggéey lan lan la koy conseiller pour mu liggéey ko étant entendu que ay orientation la koy jox ci dossiers yi rek et que donc c'est par rapport donc à la propre euh, vision de de Diomaye de oui. de Diomaye lui-même. Mm-hmm. donc moom lay defee une réorientation une autre noonu la présidence de la République di doxee. di doxee euh, ñu taxawan di foofu jox euh, waa plateau bi kàddu jëwriñ notamment jëwriñ euh, naka nga gisee tey noo dundee ndaje mu am solo mi am ca palais diggante président Macky Sall président Bassirou Diomaye Faye accompagné de Ousmane Sonko loolu dinaa ci ñëwaat ak docteur Cheikh Dieng mais déjà yow sa gis-gis ci ndaje moomu am tey ak peut-être ban sentiment nga ci am en tant que citoyen sénégalais. bon je suis un peu surpris ci taayu Diomaye man dama yaakaaroon nit ku tuuti la mais damay ah. gis moom mu taxawee ak Macky Sall <laughs> ah, ah diggante bi dafa ci màgg wala wala sur président bi daf ko dugg en tout <laughs> euh, bu kii la quoi nu mu tuddati euh, hmm, c'est féliciter mm-hmm. lii mooy Sénégal donc euh, li bu dul woon ñàkk quoi. ñi ngi wax sànq ni mu taaroo ndaje mi xam nga lu rafet dafa rafet. lu rafet dafa rafet dafa am mm-hmm. loo xamante ni peuple bi moo ko moom. dëgg la kenn moomu ko. Mm-hmm. te peuple bi yàlla dama ne Sénégal yàlla dogal na ni peuple bi. Mm-hmm. mën nañ la juñ mën nañ la juub fal la. mais tamit mën nañ muñ. dëgg la durant sa mandat yëpp bàyyi la nga dawal. ñu xaar nag bis boo xamante ne ci la ñuy am ak yow rendez-vous. faj seen mer wala ñu. confirmer wala ñu sanctionner. Mhm. loolu seen droit la. moo tax élection présidentielle peuple bi moo ko moom. politicien bu ci nekk wala kuy def politique ku nekk. Mhm. mën nga wax sa yéene euh, <coughs> mën nga mën nga mën nga wax sa yéene. Mhm. Mm, di nga yéene réew mi. parce que en quelque sorte Sénégal ñun ñëpp comme bato la ñun ñëpp ñoo nekk ci biir bato bi. ku ci nekk li nga am ci lu baax war nga ko jénnee ci pénc bi. pour que mu jëriñ Sénégal yëpp. léegi nag su boobaa peuple bi ku mu joxoñ ne kooku la kooku la léegi li ci des mooy laxasaayu ànd liggéey. Mm-hmm. mais lii di nga xamante ni tey jii moom la dëkk bi yëpp doon ñaan parce que ñëpp ñu ngi doon wax naan bu ñu amul élection ba le deux passé naka lay demee. bu fekkee ni tamit euh, élection dafa jàll passation de pouvoir amul dafay am luy manqué. waaw li Bassirou war xam ku koy wax. ku koy wax xam nga yooyu yëpp dañu koy doon tiit mais yàlla defal nañu sutura. élection bi nekk premier tour jeex ci benn fan. nagam campagne yi duré na même pas deux semaines wala deux semaines tout ah. douze jours waay douze def nañu Sénégal peuple bi daal le peuple c'est à féliciter ko waaw peuple bi vraiment la ñu war a féliciter ci maturité ak détermination am. acteurs parce que mënoon mhm. nañu jàmbat campagne bi dañ ko wàññi dafa gàtt sonal ñoo ay recours mais ñoom ñëpp vraiment. Hmm. ils l'ont pas fait loolu aussi pour man lu jar a rafetlu la. waaw waaw waaw loolu tamit euh, parce que demoon nañ ba benn moment boo xamante ne ñëpp xamoon nañ ni dem élection. jàll situation bi ñu doon dund moo gënoon ëpp jàpp dal ko sa comme élection yi dañ ko reporté woon dix jours avant dix heures avant l'ouverture campagne bi donc ñu reporté ko loolu rek nekkoon na benn coup bu xaw dis ci peuple bi quoi même ak ñi nga xamante ne ñooy candidats yi ñu sélectionné woon pour ñu dem diisoon na trop ci ñoom demoon nañ ba nga xamante ne dañ doon subir rek ko mais kenn tawalu ci woon sa programme comme ni nga ko bëggee mm. donc euh, muy mel ni dafa amoon benn dis euh, dis boo xamante ni peuple bi yëpp bëggoon nañu yénneeku loolu wax ji ci quoi et yàlla dogal na ni aussi euh, écart bi dafa bëri. <laughs> écart bi dafa bëri parce que recours boo koy def da koy def ci diggante ay ñaari point yeeg ñett fu mais <laughs> tamit écart bi moom vraiment dafa bari ko mm-hmm. dafa bari donc euh, sant yàlla bon c'est assez ils sont à parce que seen yéene ak seen bëgg-bëgg la ñu wax quoi ak lañ lañ def dëkk dëkk bi tànn na